jamono ji ñu baree bari di jàmbat ba ñuy metti te xamuñu luy sabab bi muy laaj loolu luy sababam maanaam ba ñuy metti bari lool yomb lool ak loo yaakaar ni dina ko saafara moom dina ma tax ma dab dabaatal lu ma fàtte woon sax naam ñun ni ñuy dundee moo baaxul mu ñuy lekk baaxul añ ba noppi reer ba noppi ndékke ba noppi naan ndox mu sedd màggataale bëñ lu jafe la kaas bu tàng boo ci sottee lu sedd mu toj bi ci des xooñ pour ginaar la ak kanaara <laughs> ndaxte dafa am lu ci ne sooy togg ñam lépp luy impureté day wàcc ci suuf booy xooñ nga yóbbaale ko bi ci des li ëpp ci cin yi ay moteur yoo xam ne oto bu daan utiliser essence bu am plomb moo ci ne day nekkaat ci xooñ bi ci ci ci aluminium bi sooy xooñ nga yóbbaale aluminium bi jafe na kuy dundee xooñ mu màggetaale bëñ wala mu fàtte opéré wuñ ko appendice. gars yi kon xooñ a ngi noonu dee leen ko bàyyi xel xooñ kat nee na nañ koy wattandiku bu baax a baax baax kii daf doon laaj ñiy boole kafe ak meew ndax loolu amul benn njariñ ci amul lu muy wàññi ba noppi lu mel ni soble nga jox ko ci ay njariñ. dañuy tàmbalee soble loolu moo doon mujjul programme bi. soble daanaka jafe na nga gis lu ko gën te nit di ko jëfandikoo day tax day rey ay parasites maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay saan ak lu ni mel ak yeneen i jàkkatal ah bëri na lu muy jariñ nit nga soj di nga xeeñtu rek mën na wëral soj beeg lu ni mel ah. waaw café ak meew nii dañ ko faral di def mais tubaab bi dañ naan c'est indigeste maanaam boo ko naanee doo ko digere soit da naan kafe wala nga naan sa meew. mais boole leen mën na laa bañ a wàññi dara mais doo ko jëriñoo. jërëjëf kii muy laaj ndax xeeti bouillon yooyu ngay wax te nga waxtaan ci waxtaan wu yaatoo yaatu mu ne ndax day wàññi kàttan maanaam day wàññi ngóor ah dama koy jaajëfal xam nga waxtu wi xat bi moo ma moo tax moo ma faay ba lépp ma fàtte ko mais nee nañ ci ay gëstu leer na nañ que boo demoon tey yi saawoo gi nga am ci xar moo xam ne bëggoo mu am doom ci saawo gi nga xooj ko jox ko ko doot dootu ci am doom kon day wàññi ngóora bi ci des leer na naññ ne euh, soo koy jëfandikoo am na jeextal muy def sa yaram boo xam ne euh, dina mën a tax ba ndax li may nit yaram ci anam yu yenewul maanaa rek mën na gàllankoor ci ci wàllu sëy ak lu ni mel mais nag loolu firnde gu leer naññ la jox nañ ko ay mala gis jeexital bi mu am ci ñoom seen wàllu ngóora donc loolu leer naññ sàmm yu bari wax nañ ni buñ bëggee tàpp seenub jur ñeent wala juróom rek lañ ci boole wëggee ko ko mu daal di tàpp lool moom sàmm yi wax nañ ko lu bare bari xaw nag nun ñu dëkk ci di ko lekk waxtu jot kii day laaj mu di xeeti diwlin yi niy lekk yu baree bari yooyu itam ban jeexital lay def ci nit que diwlin dafa garaaw gis nga ni ñu demoon ci mbëkk mi Sénégalais bi ñu leen jàppee dañ leen a jël une semaine ñu defa leen jet maanaam ak koor koor goo xam ne li ñuy lekk du am diwlin du am suukar du am xorom ndax ñoom jàpp nañ ne ñun même bu baaxoon sax ci anam ñu koy jëfandikoo baaxul benn rosi baaxul day joxe cancer rosi te soxna yi ñëppay rosi pour nga dindi leen sax coono bu rëy la wante nag xeetu diwlin yi ñëw fii senegal ñun uwal la ci ñun xamuñu diwlinu lan la ndax diwlin gi gën ñu koy defee Sénégal muy diwlinu gerte gi nga xam ne ba ca gën daanaka dañ koy importer ñun yu nu kooj moo fi des ak diwlin yoo xam ne ay geresu bale nag naki lu ne ay façon gàncax bu ne moo ñëw ci réew mi te loolu ni sëñ bi waxoon léegi rek dafa laaj ñoom ay jumtukaay yoo xam ne lu fi duggate ñu saytu gu mbaxam xam lii lan la ak fu mu cosaanoo. jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni gura ak kolaat ndax baax na ci wér-gu-yaram ba noppi xeeti sunguf meew yi mu ne ndax am na lu muy jeexital ci yaramu doomu aadama wala de benn sunguf meew yëpp du ñu meew. am na ci yoo xam ne ay leew soja laak lu ne am na yoo xam ne ay garab lañ jël defar ko du meew. donc du sunguf meew bu nit ñi gis rek meew la donc coow ngi noonu est-ce que su dee meew rek baax na mais est que meew la bi ci des gura de xaw ma mais petit moom moom moom lu baax ci nit la wante dafa mbóot mu ci ne dañ naan booy lekk petit cola bu ko dagg di ko xaaj xaajte maanaam nga dagg def sa poos meen ma cay génn baaxul dañ ne nga lekk ko benn yoon mu jeex am na ñu jàpp ne sax ras ko set lekkaale mbar ma sax moo gën waxumaa na nga di ko xaaj donc kenn du ko xaaj mais dafa baax ci lépp lu jëm ci ay feebaru biir. waaye ku koy lekk doom bi ngay lekk noonu rek. doo ko xaajal kon loolu ñu dégg ko baax kuy lekk petit cola amul xaajale da ngay lekk doom bi noonu rek. kii dafay laaj ba xam euh, mu ni damay laaj naka lan mën a def ba mucc ci xeeti lekk yooyu nga xamante ni yaa ngi ko doon wax nii léegi nun mën a def ba mucc ci. ah mucc ci moom jafe xanaa nun def wàññi ko. fa ngay tàmbalee nga ne sama kër kenn dootu fi jëfandikoo saf-safal dootuma jënd boisson bi saab lay jëfandikoo def ci naana def ci citron wala buy wala junjeer wala ditax wala lu ni maanaam da ngay wàññi mooy tundiku di lekk ci lekk euh, mbooloo yi tant que mbooloo ma koy saytu tàggatuñ leen ñun de ci mbooloo weer wala ci ginnaaw def nañ fa benn bisu xasida juróom ñetti mën a yen tegoon benn bu ñoo teg dugg ci te ña fa jëfandikoo ñëpp kenn waxul ne naqari na donc fexe ba mbooloo yi tamit ñu xiirtal leen ci ñuy togg lu sell di joxe naan gu sell tam da ci daal am solo ki day laaj mu ni soble lan lay jotee biir buy daw ndax nee na dafa am koo xam ne moom day def saa bu lekkee soble rek mu daw biiram muy laaj loo ko doon digal ak li nga wax ci soble ci baax euh, soble baaxawul wante nit ku ne am na ñam woo xam ne yaramam da koo nanguwul am na ñoo xam ne fii duñ jëfandikoo ndawal mais soble dëgg-dëgg soble dafa baax ci nit surtout nga jël soble bu ndaw nga dagg ko lekk noonu lu jeextal bu am soble def sa sa sa yaram wante daw gi muy daw biiram man xawma lu tax mais baaxoowul di daw biir normalement. ki day laaj mu ni suukar sii lu tax docteur yi di ko bindal nit ñi te baaxut te xam ni baaxut. Ah, docteur yi ñi ñàkk pexe lañ koy bindal. amul ku dara jotul nga dem docteur di lu ko bindal amul nit ñi ñooy dem di ko bindal seen bopp di ko jëndal seen bopp ki nga xam ne docteur mënu ko tere suukar te bu jëfandikoo bii mu lor ko lor gu gaaw mu ne comme bii moo fi sës naa ko ko jox ñoom ci loolu lañ nekk mais euh, nit ñi ñooy dem di ko jëfandikoo seen bopp automédicamentation. mbokk mi nee na moom daal su la doon déglu nga di ko digal yan xeeti ñam nga koy digal muy sàmmonteeg moom te di ko lekk. Ah. ci ci laaj bi laa gën a maanaam ni maam daan dunde cere laax ah fonde mais ceeb ñu def mbaxal te bàyyi ceeb bu wesan di naan saa yu ndox nekkee sam xel ñun dañuy dem ba mar doog a naan mi ngi mel ni ku dawal sa oto ba radiateur bi tàng loolu lay tollool saa saa yu ndox sam xel demee ci ndox rek danga war a naan li soo gisee Sénégal ëpp ñaar la du naan dañuy jëfandikoo loo xam ne dañuy jural seere suñu feebar yëpp ci loolu la cosaanoo donc daal na jëfandikoo li maam daan jëfandikoo moo ci produit chimique mbokk mi nee na bouillon yi nga fi wane léegi te ndëkk ci di ko lekk moom yan xeeti jafe-jafe ak yan xeeti wéradi la mën a jeexital ci yaramu doomu aadama ah wax naa ko léegi ay cancer ay feebar ci wàllu néegu sëy ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais li gën a siiw mooy problème maladie cardiovasculaire maanaam ay AVC ay xol ay feebaru sidit ay feebaru tension ndax xorom si si nekk même bu dekkuloon posom sax li ci nekk ci xorom dafa ëpp waaw. mbokk mi mu ni suukar fii nga doon wax ndax mën nga ko koo ràññat leel ba mu xàmmee ko ba man koo wattandiku bu baax a baax ba xam ban xeet suukar la. ah xanaa wax ko rek bu demee gis ñu bind aspartame 951 wala yu ni mel. mu xam ne moo ci nekk ah NutraSweet tur yi rek ci ndax moog suukar ñoo nuróo waaye du sax suukar moom xorom la mais dafa nuróog suukar donc ji la ko moom jafe na lool wante nag jàppal bépp jus wala xeetu naan boo naan mu bàyyi caf ko sa làmmiñ rek xamal ne moo ca nekk. jërëjëf mbokk mi itam mu ne dafay laaj mu ni sëriñ bi comme xeeti ñam yi nga wax maanaam xaj na. lépp mënee su leen a wattandiku bu baax a baax léegi nag mu ni loo koy digal ngir xañ na bu juumee ba jëfandikoo ko nu muy mën a def ba maanaam nan lay mën a jëfandikoo waat ba xañ na bu ca war na mën a am ay loraange yu yàlla dina ko ca mën a dimbali. Ah, loolu dina dina yéeme lool ndax biir moom kaso la moom kay li mu ko digal mooy fexe ba bañ ko jëfandikoo rek waaw bu ko jëfandikoo mu moytu ko ëllëg ndax tamit nu suñu borom sàkkee mën nga jëfandikoo loo xam ne benn ñaar ñett mën a la bañ a wàññi dara lu bon mooy nga dëkk ca sax sa maanaam nen sax nen bis bu set nga lekk nen boo koy lekk léegi nga faatu nen sax mënoo bis bu set nga lekk ci benn nen yàpp sax bis bu set nga lekk yàpp doo gudd fan ndax sa yaram bi dafay acide sa deret bi dafay acide donc nga xam ne dëkk ci mbir sax moom moo yéeme waxuma nag poson mbokk mi mu ne xorom bi nga doon wax la bëggoon daal ñu mën ko ko leeral ba mu xam